bismillahi rahmaani rahim tey ñu ngi leen di dalal di waxtaan ci li nga xamante ne moom la ñu waxtaanoon suñu première édition tey nag ñu ñëw ci deuxième édition ci daj dëpp gi ki nga xamante ne ni moom mooy gaynde gu mag gi ki nga xamante ne moom mooy Ninki Nanka Soundiata Keita bi ki nga xamante ne ni wax dëgg fa yàlla moo doon juróom-ñaari jikko yi ci maamam ki nga xamante ni nii loo yaakaarul lu ne ci faj ci dindi doomu aadama mi ngi dajaloo ci moom kii mooy gaynde gi kii mooy daj dëpp gi kii mooy Ninki Nanka Soundiata Keita bi tey moom la ñuy dalalaat ki nga xamante ne ni su màttee day dagg su jàppee du bàyyi waaye su fajee indi résultat kon nag bismillah ci daj dëpp gi euh, ñoo ngi lay nuyu di la dalal euh, suñu ñaareelu pàcc émission bi nga xamante ne ni moom moo ëmb wàllu faj jinne rab lepp lo xamantene rek doomu adama yi ñong koy dund te mu doon ay jafe-jafe amna ci ay dindi amna ci ay léral waye tamen amna ci ay def kon nak sëtu suñu takay ta baangi nonu noonu yéen bismillah gannaaw bañu santé yalla ñu ngi julli ci yeneen tamba di gërëm suñu maam suñu jatakay ta mi ñu meññ mi nga xamanteni ni mo ñu toogloo fi ci diwanu Liberté 6 ak liko wër ndakaaru wërgal kep ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep di la nuyu yow sëñ mbay di ñaan yalla ñu yalla defal jamm ci barki suñu maam kay ta le roi d'Afrique jërëjëf sëñ Baye. tay nak ñuy wax ci lo xamanteni mo moo lëmbee jamono li nga xam mo jaaxal ñep ñen ñi indi ci ay calmant ñen ñi ci am xel ñak ci nañ koy defee moom mu ne len solution bi mi ngi ak moom. moom moo ko téye su ko neexee dem suko nexé neexee ay jinné waye tamit suko nexé yondi li nga xamanteni ne moy xam-xam bi suñu borom dégg kon nak ñuy wax ci impuissance sexuelle manam ngóora gu xaw a yambambaay cib góor waaye tamit ngóora goo xamante ne ni léeg-léeg mooy tas néegu sëy euh, ñu koy laajte loolu lan moo ciy saafara nan lañu mën a def ba lii nga xamante ne ni moom moo lëmbee jamono tey tas sëy yi lan la ci war a mën a indi ci solution pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir néegu sëy yi rawatina sama nijaay yi. feebaru ngóora dafa benn d'abord rek dafa bari la koy indi. day tax mu dal nit ki mu bëri ay maanaam la koy indi hmm. lekk yi ñuy lekk dana ko indi ci alimentation bi waaw benn ah, ah. wàllu rab dana ko indi uh-huh. wàllu xel mu dalul maanaam souci hmm. dana ko indi stress dana ko indi waaw wàllu liggéey itam dana ko indi gis nga yooyu noonu ma lim hmm. képp ku ci am benn ci yooyu uh-huh. boo ma seet see man Cheikh Ibrahima Keita surtout Soundiata Keita ni ki nanka Soundiata Keita bi ma tàkkale la ak sa jàngoro waaw parce que d'abord ku njëkk ñëw ci ñun lu ñuy njëkk a def boo doo ñëw rek nañu dama am faiblesse sexuelle ñu jox la garab déedéet dañuy laaj suñu jinne yi nga xamante ne ni ñooy bir bi kor bi koo bi baroori daa bi dura saare dental jinnaaɓe onon ɓe jinnaaɓe laamiɓe hirnaange purnaange nana e ñaamo jinna yooyu ma tudd nii mm-hmm. ñooñu ñooy seetkat yi ñooñu la ñuy laaj ki fi ñëw tey ana lan mooy jàngoroom ñu wax ñu jàngoroom lii la waaye kat jàngoro bi ci lii la ko jëlee su ko defee ñu mën la faj ñun du ñu koy làmbaatu déedéet dañuy daj la ñuy faj doog ko faj mu wér moo tax képp ku ñu faj ci kattanu yàlla ak suñu maam Soundiata Keita péng lay def. la ñuy faj daf leen leer naññ ba tax na ñu bëgg lu leen leer naññ di leen dimbali ci rond point fii nga xam ne moom mooy rond point Pentola boo fa yegsee boo xoolee ci côté ndeyjoor bi tuuti bu fekkee da ngaa jógee côté bi nga xam ne moom la ñuy wax Liberté 6 euh, bu fekkee ne mënoo jot nga jël ci numéro yi ñu leen di dégtal muy 77 664 92 92 wala nga jël 70. 750 18 84 wa ilaa nga jël li nga xamné ne moy 76 136 78 30. pousse nag ci impuissance sexuelle bi parce que li nga fi wax lépp jariñ la. Mm-hmm. wayé dafa nek dafa fekk rek moy jangoro jangoro yi té moom moy daj dëpp gi. té solution bi nak ñu am yaakaar lool gannaaw suñu borom euh, gis nañ ni am nga ci xam-xam am nga ci man-man euh, kon ñu gën ci xouss rek nga indi ci ay leeraange. yàgg na ci def résultat amna sama patient bo xamante ni nii soxna la amoon. ba ko loolu jàppee ñëpp a dem ñëpp kenn desu ci. est-ce que alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu gisantee gëmul woon ni fajkat dina ko mën fajal euh, impuissance sexuelle bi mooy góor gu tële mais alhamdulilahi rabbil alamin bañ ko joxee suñu garab yi nga xamante ne ni maanaam ñu ak jinne yi ñoo koy liggéey parce que daf ñuy jaral ñuy jël vol di dem ba ci àll ba di jël ay médicaments yoo xamante ne ni rien que pour jàppale jaamu yàlla yi ci xam-xam bi ñu yàlla jox kon loolu bu ci kenn am kepp ko am problème impuissance sexuelle des fois dina la dal manam euh, sa kanam bi day wàññeeku ben des fois dina la dal sa kanam bi du wàññeeku mais du amati doole des fois dalay dal nga gawa yek sa bop da ngay nek kuy gawa yek bopam dafa bëri ay façon mais kepp kum ci dal ak ak bum ci manti don boma man Cheikh Ibrahima kayta ma dindil la you waaw sëñ Ablaye yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax nga di jaajëfal suñu caméraman suñu taalibe yeeg képp ku ñuy déglu ku ñuy seetaan soppey Cheikh Ibrahima Keita yi suma mbokku Facebook yeeg WhatsApp yeeg Imo bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñun nekkoo wuñ fii lu mooy jàppale jàmm yàlla yi ndax lii ndono la dañ ko donn man da ngay lim suma ndey ak suma baay ba ci Soundiata Keita Soundiata Keita maanaam ka mu njëkk a gis bëtu doom man ci kooku laa jóge la waaw suma ndono ci kooku la direct kon ñun direct su Ndiathaka Aïta mooy daw ci ñun ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla may jàmm ci barki su Ndiathaka Aïta jërëjëf